moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal na jël kon une décision jëmee ci seeni mbir euh, muy ancien ministre yooyee kon jàppale ne rek nga xam ne euh, Macky Sall nommé woon na leen ci gouvernement am ñoom ñooñu nag euh, la ñu leen di wax rek moo di ñu quitter li nga xam ne moo di seen logement de fonction fii léegi ñaari weer maanaam bërëb ya nga xam ne dëkkoon nañu fa gannaaw ba ñu leen tabbee ni ministre ngir nag ñu mën a amal seen liggéey. Eh, gouvernement bu yees bi de daal dina leen xamal daal bëgg na ñu jugee foofee ci na mu gën a gaawee fii léegi ñaar cay weer dong la leen may. bu nu sukkandikoo ci yéenekaay bi nga xam ne moo di l'observateur di joxe xibaar bu nu mel moom nag xam na ne ni naka noonee sax gouvernement bi mu ngi sàkku ci ministre yooyu lañ leen joxoon di woto yoo xam ne dañ leen ko joxoon en tant que ministre gi ñu liggéey ko ñu daal di ko delloo niki tey jëlee. ñooñu ne kon mu mel ni jot nañ ak courrier bu jógee ci présidence de la république. ci mbir mu ni mel ni ki aljuma bi la ñu génn délai de rigueur bi nag maanaam bi ñu leen appal ngir ñu delloo woto yooyee dana woy ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi nga xam ne moom la ñu dëgmal su weesoo lu ñu mel na kon maanaam bu ñu demee ba délai boobu jeex bépp ministre boo xam ne delloowoo cab woto état du Sénégal dina user de tous les moyens dégo ngir nag récupérer oto yu ñu mel. mu mel ni sax eh, ci loolee am na ay ministre yoo xam ne kon ñi ngay def seen kim kàttan jamono yi la rek ngir eh, fexe ba yóbbu gaare oto yi nga xam ne moom la ñu leen joxoon ca bërëb ba ñu leen daal di eh, joxañ ngir nag ñu mën a am li nga xam ne moo di quitus bi wane ne rek ñoom ñu ne daal daal nañu delloo seeni véhicule de fonction en tant que ancien ministre de la république source yi ba tey jugee ci présidence de la république di xibaar rek ne secrétariat bu présidence Euh, kon mu ngi yor listu bépp doomu aadama boo xam ne rek euh, yoroon nga ci oto yooyee euh, moo xam nombre ba ñu la joxoon wala marque ba nga xam ne moom la ñu joxoon ba ci sax année bi ñu ko daal di tegee si sa loxo kon daal la ñuy sàkk ñoom rek moo ñu delloo ko ca na mu gën a gaawee loole nag la ñuy daal liir ci nga xam ne moo di presse tey jile ba tey sax interlocuteurs yi di xamle rek ne. oto yi nga xam ne joxoon nañ ko ay doomu aadama yoo xam ne bokkuñu woon ci gouvernement bi nekkuñ ci woon ministre wala ministre wala DG wala lu mel yooyu tamit état bu Sénégal euh, bàyyi na xel daal di ko euh, teg loxo euh, état bi kon jàppale ne rek dafa organé ordonné ancien ministre yi ñu libéré nag ñi nga xam ne moo di logement yi ñu nekk jamono ji muy seen logement de fonction fileek li nga xam ne moo di délai bu ñaari weer loole nag ñu tombale ko ca jamono ja nga xam ne ci la ñu jotee. lii day euh, lettre boobee euh, moom nag kon mu mel ni rek looy daal euh, bokk na ca maanaam daal récupérer li nga xam ne mooy le patrimoine bâti bu état bu Sénégal ci patrimoine bu état bu Sénégal sax moom Abdoul Mbaye nekkoon fay jamono premier ministre nee na nag faaw ñu wàññi wàññi rek li nga xam ne moo di train de vie bu état bi moom Abdoul Mbaye kon di proposer sax ci anam boobee li nga xam ne moo di jaayuk lile di avion présidentiel yi nga xam ne njiit réew mi moo woon Macky Sall moo ko fi jëndoon ci xaalis bu takko takko ci sunuy milliards moom nag nee na daal euh, euh, bind na ko ay yoon te yàgg na ko wax na ko répété waat na ko euh, moom mi di Abdoul Mbaye nee na jàpp na rek train de vie bu l'État moom lu ñu war a wàññi la ndax Sénégal jamono jile ci ay kàddu ma ko gis-gisam moom Abdoul Mbaye nekkoon fay jamono premier ministre dafay rek dund état bu Sénégal kon dafay dund dund gu diis a diis gu métti métti ci li nga xam ne moo di sunu budget Euh, mbir mi daal dem na ba loo xam ne atte na tunu ko mais nag parfois dafay ànd ak li nga xam ne moo di ay euh, complicité institution multilatérale yoo xam ne dañuy tëj seen i gët euh, ci lu jëm nag ci li nga xam ne mooy couvrir li di faux taux de croissance yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ak des budgets tout aussi irréalistes noonu la ko daal di xamle moom mi di Abdoul mbay ca jamono jooju moom ancien premier ministre mu jàpp ne rek li nga xam ne bokk na ci première solution yu ñu war a def rek mooy réduire ci ni mu gën a gaawee train de vie bu état euh, te loole nag euh, tamit ñu def ko ak ay mesures concrètes parfois sax euh, yu symbolique mu bokk ci nag moom la mu jàpp ne rek mesure la yu ñu war a doore ngir def lu nu mel mu di nag jaay lii di avion présidentiel bi nga xam ne dana jural askanu ko Sénégal bu ñu ko defee rek xaalis bu takkoo takku boo xam ne danañu ko mën a dugalaat ci li nga xam ne moo di sunu budget loolu di gis-gisam moom mi nekkoon fi ay jamono premier ministre de la république du Sénégal Abdoul Mbaye mu jàpp ne rek euh, wàññi train de vie de l'état moom urgence la bu nu war a def rek ngir may sunu euh, économie mu daal di noywaat euh, te bokk na ca la nu ko war a dooree rek mu di jaay li nga xam ne moo di avion présidentiel bi nga xam ne rek ba nu ko daal di jënde ca nguurug Macky Sall sax moom yàgg na fi di fi jur coow. publication rapport euh, cour de comptes yi nag mbokk yi kon jàppale ne euh, moom mu ngay wéy du juri coow euh, ki bi nag ca addu réagir ca du kenn rek ku dul ki li nga xam ne moo di madame Aminata Touré moom Aminata Touré nag mu mel ni rek fa mu nekk ca biti réew bokk na ca la mu wax rek moo di moom mi la daal musul détourné benn dërëm ci li nga xam ne moo di dernier public loolu di réaction am kon gannaaw nga xam ne ay médias dañoo déclaré rek ne moom mi la inspection générale d'État def ko daal di euh, épinglé moom Aminata Touré nag euh, weddi lu nu mel moom ancien premier ministre bi nag euh, nga xam ne nag kon mu ngi par ailleurs sax nouveau régime bi gannaaw bu mu weddi tumb yooyu ñu dem jusqu'au bout ci reddition des comptes bokk na ci sax lu jëm ci dossier wu fond Covid 19 yile moom nag nee na fa mu nekk ci biti réew rek. ci la jotee xibaaru ne gannaaw publication rapportu IGE di inspection générale d' état am na une certaine presse bu muy duppee sax presse politique boo xam ne rek la leen tax a jóg du dara rek lu dul yàq deram waaye nag atteinte li nga xam ne mooy réputation am ñu ngi joué nag le mot nga xam ne ñoom ñu ne daal euh, ñoo xam la ci seen intention moo di yàq dong mo leen tax a jóg waaye muy fàttali rek ne. Euh, ci ndigalug Macky Sall euh, lu mat ñetti at moom def na observe li nga xam ne mooy première vérification wu IGE di inspection générale d'État ci benn institution nationale publique euh, depuis 1960 moom nag nee na publication rapport boobu nag de vérification bu IGE question bi nga xam ne rek moo ci toftalu mooy ndax Aminata Touré mi la nekk na Euh, bu conseil économique bi nekkee ci boppu conseil économique social et environnemental détourné na un franc des deniers publics mu ne nag laaj bi rek laaj boobee kon tontu bi moo di non mille fois no moom nag nee na kon ancien collaborateur mi fonctionnaire de l'État euh, du Sénégal nag ñi nga xam ne ñoo chargé wu gestion euh, financière yu conseil économique social et ci présidence am ñu ngi vaquer tranquillement seen i occupation depuis deux mille vingt car nag amul benn détournement boo xam ne rek mënees nañ ko reproché moom daal nee na daal euh, am na liberté entière ñu opposé wu nag vraiment au troisième mandat ki nga xam ne moo di njiitu Macky Sall gi mu jàpp sax ni euh, bokk na ci jamono jile la tax mënuñu ko digérer muy loolee njiitu réew bu yees nag wala gouvernement bu yees lam leen di woo rek mooy reddition de comptes moom nañ ca dem ba mu sës rek gannaaw publication rapport yi bokk na ci sax lu jëm ci dossier yëpp euh, mille milliards Covid 19 ak kii di euh, Mansour Faye nekkoon boobu frère bu président de la République euh, ñun ko cay tudd ak lépp moom daal jàpp na ne loole dafa war a leer loole di kàddu yi ki nga xam ne moo di madame Aminata Touré moom na kon weddi bu baax a baax la nga xam ne rek